asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokki jullit yi tey nag ñoo ngi fii ci zawiya seex Seydi El Hadji si góor gu tedd googu góor gu baax googu góor googu nga xamante ni tabaarakallahu li ma liggéeyal yàlla sunu borom ci àddina bi tabaarakallaahu am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem tabaarakallaahu borom parasol boobu nga xam du ragal tàngaay junj la nga xam ni caw fii riir ci àddina yëpp di wax ci wàllu gudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo tuddee gàmm rek xel yëpp day dem ci góor gu tedd gi tëdd fii tabaarakallaahu kii nga xamante ni tabaarakallahu bu nu waxee borom barrière or ba ci Medinatul Munawwara xel yëpp day dem ci Cheikh Seydil Hadji Malick si ndax li mu ko wax ci xilaasu zahab tabaarakallahu góor gi nga xamante ni mooy bàyyi Cheikh Seydi Aboubacar si di bàyyi ki nga xamante ni mooy Cheikh Hadj Mansour Bal Qawmi tabaarakallahu di góor gu tedd di góor gu baax di góor gu yiw tabaarakallahu di ñaanal yàlla njabootam yi mu am yëpp yàlla yàlla teg ki ñoom loxo ci barke alquran mbokk yi ki nga xamante ni moo waral ñu ñëpp ñuy Euh, rëf-rëf yi ñu ñëpp ñuy waral kenn lekkatul kenn naanatul li nu ko defal tey mooy góor gu tedd gi Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu tabaarakallaahu góor gi ñu sagal góor gi nga xamante ni moo ubbi woon université populaire boobu ca Njarne tabaarakallaahu fépp fu waay jógee ci àddina ñëw mu def ci yow xam-xam def ci yow yar def ci yow diine def ci yow bëgg Seydina Muhammad waaye def ci yow bëggu Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif tabaarakallaahu loolu di law di law tey ba egsi ci sët yi tabaarakallaahu ba cofeel gi ñu am ci moom ñu ko sax muy kan mooy borom bijjaaw bu rafet boobu tabaarakallaahu alxaji Mbégi àddina yëpp ko bëgg ndax lan ndax mbaaxam ndax lan ndax yaram ndax lan ndax bëgg yàllaam ndax lan ndax bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ñu indil tariixa Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif ba mu tabbi suñu loxo amuñu fayam damay wax ni àddina képp koo gis muy defuk njàmbaar képp koo gis muy rey boppam ci xadara bi day ut bor bu mu dawal ci Seydil Hadji Mari li mu defal ay maamam wala wala li mu defal baayam tabaarakallaahu di góor goo xamante ni kenn amul fayam ndax njàmbaaram di góor goo xamante ni kenn amul fayam barab bu tedd bi mu tëdd nag mook doomam ju tedd ja seel xaj Mansour bal xaw mi ñoo fi tëddandoo tabaarakallaahu dégg naa ci mag ñi ñuy wax ni suuf si la yàlla bindee bu la yàlla bu la yàlla defee nga dellu ca mag ña yow mi nga bokkaloon benn suuf la ñuy boole benn bàmmeel loolu tegtal la ci ni Seydil Hadji Malick Sy ak Seydi El Hadji Mansour Bal Qawmi ñoo bokk benn suuf bu leen sunu borom mooñe moo tax ñoom ñaar bi ñu jee mag ñi ñoo bokk benn bàmmeel tabaarakallaahu borom ñaari kaala yooyu tabaarakallaahu di kan bàyyu Cheikh Seydi Aboubacar si borom bonekaare bi borom sakkare yàlla bi ki nga xamante ni borom mantu bi fi mu toog. du ko jekkal du ko sengal comme ni ko mag ñi di waxee tabaarakallaahu waaye tamit mooy bàyyu si alxaaji Abdul Aziz borom bi jaaw bu rafet boobu borom 40 ans zéro faute genn góor ni ma bul waxati 40 ans zéro faute ma ne ko lan laay wax mu ne ma boo nee 40 ans zéro faute te mu dund 92 ans léegi 52 ans ko bëgg wax ma ne ko kon lan laay wax gi mu ne ma da ngay wax borom 92 ans kon kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it ci liggéey bu rëy bi mu liggéey fii nga xamante ni heure bu réew mi jaaxle xel yi dañuy wax ni si alxaaji Abdul Aziz manqué nanu tabaarakallaahu loolu loolu mooy li nga xamante ni tey moom lañ ñëwoon fii maa ngi tourné nag yem ci sama benn xarit bu ñuy wax mbër Fass Mbaye tabaarakallaahu xam naa moom laay àndandoo tëj li nga xamante ni mooy émission bi di sët ci góor gi Moussa Alé Mbaye di nit ku baax tabaarakallaahu tey nag ñu ñëw seet si ki nga xamante nii mooy ki waral mbir mi ki nga xamante ni moo waral kër-kër gi nga xamante ni moo waral coow li ki waral ñu ñëpp sunu maam yi daggee ca gott ba ñëw fekk si ko fii ngir lim ñu wan Seydina Muhammad benn baat nga waxal wala ñaar ñu tëj émission El Hadj ngi lay ziar bu baax di la sant ci sa taxawaay ci gàmm gi di sant moom Ndokh TV di ñaan yàlla fi ñuy dégg télévision yëpp yàlla nañ ko fi dégg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam li Abdoul si Sy wax barki démb rek ni li Mame Hadi wax Seydi Hadj Malick yallaahu an najziyan li cheikhi sayidina alhaaji Malick bi ma yurdihi yallaahu nee na war nañu bés bu ñu xëyee ndékki ko ndékki waaw moom Seydi Hadj Malick waaw nee na heure bu ñu xëyee nañ wax yàlla na yàlla fayal Seydi El Hadji Malick ndax moo ñu indil loo xamante si ni kenn ku ci nekk boo xëyee rek sa stress jeex na allahu akbar ndax lan li ñu dëgmal muy màggal guddi juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mosu koo yenkeewal kenn ci saxaaba yi donte liggéey nañu yonent bi waaye màggal guddi yonent bi Seydi El Hadji Malick ko yàlla jagleel hmm. loolu nag buñ ko amee ñun waa Tiwaawan nañ ko sante sa Seydil Hadji Malick kii amuñu fayam yóbbu nañ àjjante déewguñu wallaay barke alxu billaahi maa la ko wax alaaji allahu akbar yóbbu nañu àjjana si te déewguñu déewguñu kon àjjana la ñuy dund mos nga am benn stress déedéet barke alxuraan surtout mos ngaa jaaxle ci leen mos ngaa dem fenn sa dara tak ku la gis xam ne kii taalibe Seydi Hadji Malick loolu du sax ku la ëppale ci moom xaw ma ko kenn ci moom alaj maal dafa laa jur ci biir jur la ci biti nee na aw ma doomu deret man doomu ruux laa am te ku la xool xam ne yow ci doomu Seydi Hadj Malick nga bokk ndax da ngay seet doomu alaj Malick génn ci mbooloo nga tàlloo ko micro mu jox la xool la xam ne ci njaboot nga bokk mu wax ci sa micro bii te bari na ñoo xam si ni nanguluñ ko ko te man gis naa loolu ci yow kon bu la alaj Malick jurul woon doo am li nga am alaj Malick la jur doomam nga sëtam nga ci njabootam nga bokk maay wax ak yow. jërëjëf <laughs> mbokk yi mi ngi noonu alxaaji mi ngi jëm ak Mame Ndokh TV lii lañ leen indi loon tey ci euh, zawiya Seex Seydil Alxaaji Maalik gis ngeen ko taar bu ne alxaaji Maalik yeeyoo na ko alxaaji Maalik yeeyoo na xabaru boo xamante ni jamaa lay nekk ndax li mu liggéeyal yàlla alxaaji Maalik boo gisee fan yi mbër taalibi Seydi Alxaaji Maalik yàlla jox wërsëg nit ñi kër kër yi ngir kenn ku ne di njëkkante sa njàmbaar ci alxaaji Maalik loolu lan lañ léegi rek laa ma ni nit a ngi ni siiw di déglu rek lu ñu ñi ngi defar nangam ci Tivaouane ba mu jël ko en charge ngir lan sagu Seydil Hadji Malick bi ko yàlla defal démb bi ñu muri rawdu bi bi ñu noddi timis ba wasi fa ci biir wasu wi ci la ñu muri rawdu Cheikh Seydil Hadji Malick bi nga xam ne dañ ko doon yeesalaat. allahu dama ne ko jàkk rek sama xel dem ci rawdu Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yi. billaahi benn la. wallaahi nañu ko defee rek ne buntu ba féeteeg loolu lépp nii rawdu Seydil Hadji Malick mel ak rawdu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn la kiif kiif amul wuute loolu moom bokkul ci ma njëkk a yéem ko mur rek sama kurus xawtul ma dagg ko waaye ma ànd ak sama sago waaye lépp nag lépp nag Cheikh Seydil Hadj Malick radiyallahu taala Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour ñu koy ñaanal yàlla mu gudd fa lool te ñaanal ko yàlla mébétam mii mu commencé di jumaay maamam jee nga xamante ni Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ko tàmbali woon mu yeggale ko ci jàmm jiitañu ci at yu baree baree baree bari ñu ñëpp ñu ànd topp ci ginnaaw wax naa ne El kanam bu amoon bakkan ñaaw kay ñaaw dëgg la donte dund waaye yow di nga dund di nga noyyi mais ku la xool xam ne am na lu manqué ci yow Seydi Hadj Malick bi mu ñëwee Tivaouane li mu njëkk a mooy jumaa ànd ceeg doom ju baax ja taawam ba xalifam ba ku sell ka boroom lay ju neex ji borom sàkkar yàlla ba ka nga xam ni ñun bu ñu ko xamee miin ko gëm ko Cheikh El Hadj Abdoul Aziz wallaay ndax li mu wax ci moom ak li nga xam daan noo ko def ci moom Alaaji Maalik bu fi bàyyee jumaa yow ba nga juddoo fi nga ko fekk say waajur fi lañ ko fekk ñeneen fi lañ ko fekk kon tey ji bu ñu demee tey ba sëñ Babacar Mansour yàlla yenkiwal ko ko mu yeesal ko mu mel nii yow sa mbégte la sa kontant la sa tiitar la billaahi tey it la sag la nga dugg ci jumaay Seydil Hadji Malick ni man El Hadji Mbengue kat maa ngi fii ak Maam Ndox Maam Ndox TV di wane liggéey bi nga xam ni moom la Seydi Hadj Malick bàyyi ci kaw suuf muy jumaa ju xamu si ni fataba Ibrahima Ndaw dañuy waxtaan mu ni ma jullit bu xam jumaa ji rus nga jumaa ji pare nga taxaw ci kabar te mu wóor ni la sa ñaar dërëm dugg ci loolu hélas bari na bari na fu ma koy waxee man ni képp koo xam si yaakaar nga Seydi Hadj Malick nga dëkk Tiwaawan wala nga yoro Tiwaawan wala sax yow nga doo doo sax jullit jumaa ji pare ñu ni suba lañ koy làmp yi tàkk ñëpp ñëw dugg yow nga war cee jëfaloo ci. nga ñëw dugg tam wóor ni la sa dërëm demu ci. demu ci man kooku laa yërëm. allahu akbar. sëñ Muntaxa yàlla yàlla may may kudd fan. kër ba muy indi cent millions yi fii maa nga fa teew. la mu wax sëñ Bass Abdou Khadar sëñ Babacar Mansour ni ko li ma gën a yéem ci sëñ Muntaxa mooy yëgalu ko bind ma ko leetar envoyé ma ko message yónni ma kenn ci moom. mu xam ni jumaa yi maamam la mu yëkkati cent millions def ci waaw kon ki yaakaar El Hadj kooku nan la nan la war def El Hadj. yàlla nañ ko yàlla fayal. amiin yaa rabbal aalamiin suñu Babacar waaye di sant nag ku baax El Hadj Abdou Aziz Alla Ndiaye di ko ñaanal yàlla ci li nga xam ni def na ko ci façon liggéey bi mu liggéey boo xam maam Abdou bëggoon na ko ci jaamu yàlla yi mais daf ko junj mais Abdou Aziz Alla Ndiaye laa gis mu. pratique ko ma maam ab dañu mën naa jox jumaa ji kenn mu sotti waaye dama bëgg ñi nga xam ne juddaguñu ak ñi nga xam ne amaguñu wërsëg ñu def ci seen doole ba mu wax loolu Abdoulaye Ndiaye amul ñaar dërëm. sax boobu judd na sax boobu judd na fekkiwu ko. waaye gis nga yàlla wax jooju dafa mel ni mam Abdou saan ba ba mu ba mu ne kan ci Abdou Aziz Alé Ndiaye la dal mu woo ñi mu am woo ñi mu bokkal woo ñi nga xam bokk nañ moom tariqa bi. woo ñi nga xam ni bokk nañu moom wëllëre ñu jël seen alal def ci kon la maam Abdou waxoon ca dundam ni dama bëgg ñëpp def ci seen alal Abdou Aziz Ndiaye mottali na ko. laa ilaaha illallaah ko man de naa ko bu fekkoon da ngay président de la république di nga jël ndam li ndax fi nga dal ku fa dal loo song daan ko. waaye gis nga la mu wax nee na yooyu yëpp nekk taalibe Seydi Hadji Malick ko gën a. lu maam Abdou wax ñaan leen ma nekk taaliba Cheikh. wallaahi te Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallaahu anhu nee na. sopp ma rek jarul sax nga jël sama tarixa waaye sopp ma rek kon moom loolu mu wax yàlla dina ko nangu ndax jëf na ko. maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. El maa ngi lay sant bu baax di la kontaan naa trop ci yow nit ku baax nga. gën a bëgg ci yow bi dara lu bon new. dama doon noddi bi ma séenee ne yow loo ma sant ma def ko. maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fanta may la wér. bëgg xam nga loolu. maa la raw. Abdou Aziz Ala Ndiaye. kii ci taalibi Sel Hadj Malick yi la bokk. Abdou Aziz euh, Abdoulaye Ndiaye Ngalgu kii ci taalibi Sel Hadj Malick yi la bokk damaa bëgg ngeen jàppale ko guddeeg bëccëg suba ngoon ci liggéey Seydi Hadj Malick bi la ci bilaal yi jamaa ji la bokk ci nabiyen yi la bokk waaye bokk na ci ñi gën a rafet xol ci nabiyen yi maa ngi leen koy sant maa ngi lay sant baax di la gërëm mon frère jërëjëf mon frère jërëjëf maa ngi lay sant baax mbokk yi ngi noonu Mame Ndokh TV loolu lañ bon doon émission bi ñu leen di sant baax di leen gërëm jërë ngeen jëf